ci bi. ah perte nga gauche perte droite perte ci diggante bi. ay jongante la. ok ay jongante. dañuy jongante man ak yow. bi saf-saf. yéen yomb yomb. mais mademoiselle dama bëgg bàyyi mii bàyyi gaajo mii nga daal di koy jël sànnil ma ko ca xaj. dama bëgg nga wax ma ñaata ngay laaj lum ci doon ma def ko am naa ko mën naa ko te dama koy def. wala léegi danga nga bàyyi ñooma ñaar nga jëli njaago bi jëla góoru njaago ñu ne lakkat xamul caaxaan bàyyi moo doon wax waxu jabar jabar waaw c'est bien yow la may premier njëkkee bi xanaa non non pour man la boo déggee tëggkat ba naan pataas. kenn du kin rumbax. Ah, capara càkkin capara càkkin capara pindalo capara càkkin gaay tii càkkin càkkin man càkkin càkkin <laughs> dégg nga pindam pindam ram càkkin càkkin patas qui débarque qui débarque ça c'était son grand-père son grand-père refusait de dire la ilaha illallah alors le petit-fils a dit tas ma tas rambe ki ndax et le grand-père a dit la ilaha illallah et il est mort d'accord wax ji dootul man ak yow mais man ak bàyyi la dama ne woon damay xeex ak moom jàpp ko tuccu tuccal ko pamte pamte ko jàpp xol bi di ko bës addi ko bës addi ko bës dindi kaxaw bakkana bi benn baax benn il fait avec moi bàyyi man lay jëm a suuf daamu sax saman ametu ametu John Seck non lii faaw ñu defaat ko jongante bi vraiment kontaan lool kontaan naa trop foo defee ngeen mën a xamaale samay mbokk ñu defaat beneen jongante saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb ba tey fekkaat fa président Alioune Sarr ak ñuy laaj kan moo ko war a ci boppub CNG kan moo nar wutu président Alioune Sarr mooy laaj bi lëmbe réew mi gannaaw ba ñu xam leen ne ministre Matar Ba am na ñeenti nit yu muy contacter ngir waxtaan ñoom ngir teg leen ci boppub CNG ñu remplacer Alioune ba léegi gaa yaa wax ku nekk yaa ngay xool ba xam kan la war doon ba nu joxee critère ñeenti nit ñooñee gaa amateur bu am njàngam sori lool ñeent ñooñee la Matar Ba consulté ngir dénk leen bi le journal ba xam ne moom Mouhamed Ndao Tyson ña Matar Ba tànn bokku ca ki leen xamal ne Matar Ba woon a ñeenti nit bëgg leen a teg ci boppu CNG bi moo leen xamal ne Tyson bokkut ca ñeent ñooñee ka ca bëgg bokk wala mu bëgg jiite CNG mooy Kéba moom ancien président bu école de lutte sa Ndiambour la mu xam mooy fa laa président école de

lu mu laaj ci mystique da koy def Yaxya Jóob Yékini li ni mel la wax lu jëm ci wàllu mystique duma ko kafe duma ko fowe sama combat lépp lu mu laaj ci wàllu mystique dama koy def ba mu jeex tàkk lépp loo xam ne bu ma ko defee ci wàllu mystique am ndam dama koy def mbër yi doon taseeg man sax xam nañu loolu ci man man Yaxya Jóob képp ku jëloon sama avance da nga préparé wu ji làmb ak mystique a ànd moo tax man daawuma ko fowe kadut kafe carrière fëgg buntu néegam ama neex bu ma déggee Thiès na préparé wu te xam ne ci moom laa jëm moom ak moo daanta laa soxla ñooy samay adversaire ñoom damaa bëgg ñu jox ma sama saas comme ni ko naaru sogaas defee ku ci am fit rek na jox double moteur sans xool jërë ngeen jëf mbokk yi li ma ne li gën a fës ci ëtt bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah jibi ah perte nga gauche perte droite perte ci diggante bi. ay jongante la. ok ay jongante. dañuy jongante man kon nag jongante bi saf saf. mais mademoiselle dama bëgg bàyyi mii bàyyi gaajo mii nga daal di koy jël sànnil ma ko ca xaj. dama bëgg nga wax ma ñaata ngay laaj lum ci doon ma def ko am naa ko mën naa ko te dama koy def. wala léegi da nga bàyyi ñoom ñaata nga jëli njaago bi jëla góoru njaago ñu ne lakk kat xamul caaxaan. bàyyi ma doon wax waxu jabar. jabar waaw. c'est bien yow la may premier njëkkee bi xanaa. non non pour man bu déggee tëggkat ba naan pataas. kenn du kenn rumba. rumba ah, c'est pour les c'est pour les. Ah. rabel pataas rabel pataas. capara càkkin capara càkkin caparal pindal capara càkkin gaay tii càkkin càkkin man càkkin càkkin <laughs> dégg nga pindam pindam ram càkkin càkkin patas qui débarque qui débarque ça c'était son grand-père son grand-père refusait de dire la ilaha illallah alors le petit-fils a dit tas na tas rambe ki ndax et le grand-père a dit la ilaha illallah et il est mort d'accord wax ji dootul man ak yow mais man ak bàyyi la dama ne woon damay xeex ak moom jàpp ko tucc tuccal ko pamte pamte ko jàpp xol bi di ko bës addi ko bës addi ko bës dindi kaxaw bakkana bi benn baax benn il fait avec moi bàyyi man la jëm suuf. moom faaw ñu defaat ko jongante bi vraiment kontaan lool kontaan naa trop bu ko defee ngeen mën a xamaale samay mbokk ñu defaat beneen jongante